et di wax encore une fois suñu frère yi nga xam ne candidat à l'immigration clandestine mhm. tey avec loi yi gars yi signé gis nañu ministre des affaires étrangères bu Espagne ñëw fii mhm. dem na Mauritanie Maroc signé nañu ay accord tey non seulement di nga risquer sa life ci géej mais même boo amee chance jàll boo yeggee fële dañ lay ne critique dugatlaat la indiwaat la parce que loi yooyu lañu kii gisatuñu kenn ku rëcc donc non seulement da ngay ñàkk sa mën nga ñàkk sa bakkan te bakkan du lu ñuy sàggane mais da ngay ñàkk sa xaalis. Hmm. en plus boo yeggee fee dañ lay delloo. du comme avant bi nga xam ne croix rouge daanoon na la jël formé la yenn saa yóbbu la sax ci champs yi ngay witt ay affaires yooyu di am as tuuti di yónnee sa njaboot non maintenant avec les nouvelles conventions képp ku ñu jàpp ni dañ lay indiwaat donc bul risquer sa bakkan en plus boo demee tamit nga am sa xaalis nga ñàkk ko donc waaw boo nga joxe sa xaalis ñàkk ko. Hmm. pour man jaru ko quoi waaw bakkan moom dara gënu ko fort mais on est très mal placé aussi ñun pour parler à des jeunes yoo xam ne déggatuñu jat parce que instant bi ni may wax ak yow am na kenn si ñoom ku toog seen gazu kër jeex mënu ko fay yaayam a ngi tëdd feebar ordonnance baa ngi noonu tegu mënu ko fay jabaram a ngi tëdd wala doomam a ngi tëdd donc kooku am na yenn souffrance yu muy dund ak société bi tamit bi ma wax ñun on est tous coupables ñu ngi koy agressé il nous très difficile de parler à leur place mais lu ñu mën rek mooy conseiller wax leen ne bakkan dara gënu ko fort xam nga euh, bu leen di calquer seen life par rapport ak life u kële kële am na oto kële am na lii foog ma am ko wala kële dem na kaaw génn ci xam nga man foog ma foog ma foog ma foog ma def noonu peut-être kële wërsëgam du sa wërsëg ko mhm. donc di ñaan gars yi métti na métti na à un point bi nga xam ne ñun mënuñu mais ñun wax rek la ñu mën te seen jàmm bakkan lañ leen bëggal mhm. di jéggalu su fekkee ne débordé nañu